asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk julit yi bu ngeen déggee woote bi xam ne diine woote Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam muy doon ci sous patronage bu Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass xalifab Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass ca Medina sous l'égide de Maulana Cheikh Uldu Khayri ca Kaolack ak ca présence effective bu Cheikh Mohamed Khoureychi Ibrahima honorable député ci assemblée nationale secrétaire général bu UPC yi Iran Thierno Amath Ndiaye ak jamaam ñoo am mbégte di leen ak di leen woo ci gàmmu gi ñu baaxoo at mu nekk bu ren bi di douzième édition bi samedi la ñu ko jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2019 ca terrain football bu unité 14 ba ca Parcelles Assainies guddi gi ñu jagleel ko gën gi mbindeef sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ki ko fas yéene animé di oustaz Pa Makhtar Diouf thème bi maanaam ponk bi mi ngi jëm ci warugaru jigéen ñeek ndaw ñi ci l'islam rôle des femmes et des jeunes dans l'islam guddik jaale ko radiyallahu taala anhu Cheikh Ould Ayba ca Boubacar ak rahmatullah alayha Taïb Ba marraine yi association des femmes de Podor ak ñi ñu àndal di seeni alliés programme bekk ni ñu ko tëralee njàngum alxuraanul karim la ñuy dooree bés bi bu 10 jotee toftal ci salaatul fatiha def ko addiyee rasulilaay bu ñu demee ba 19 heures 30 ñu wasi fa bu ñu ci noppee xéewlu 22 heures maanaam 10 heures ci guddi ñu amal ay zikr dalalee ko gan ñi minuit ci la gàmmu gi di door ñuy ànd ci waxtaan wi ak oustaz Aliou Cissé ci la muy waxtaan di le rôle du soufisme dans l'islam oustaz Mouhamadi Diobit dana fa def waxtaan la muy waxtaane di lan mooy fayda ñu jullee fajar ba noppi def def discours des invités Thierno Amath Ndiaye ak Doha tëj xew-xew bi bés baa mu di gàmmu gi Thierno Amath Ndiaye ak jamaam di woote at mu nekk bu ren bi di yemuk douzième édition bi samedi 27 avril 2019 ca terrain football bu unité 14 ba ca Parcelles Assainies ñoo ngi ci woo ñëpp